salaamaaleykum wa rahmatulahi taala euh, tey ñoo ngi fii ci dëkk bi di euh, Kooba euh, di nekk fi tey ñu ñëw ci ëtt bi nga xam ne moom mooy ëttu Serigne Serigne Omar Diop fekk fii ki nga xam ne moom moo di Serigne Sidi Diop sëñ bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi lay ziar baax bëggoon a xam ki nga xam moom moo di sëriñ Omar Diop ak lenn ci cosaanal dëkk bi nga xam moom moo di Kooba. auzu bisimillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah salaahu alayhi wa salaam bokk sant yàlla moom mi nu ko teeweloo te mën nu koo bañ a fekkeloowaat balaay ngoon waaye nag noo ngi ñaan mu fekkeloonu ko ay ati at ndax lii de tey la fi mas a jëkk am ndax sama wëllëri wii moo ko sabab démb lan amante sëñ Tuubaa boole ma xamal ko bis bii mu ne ma bu ma deewul danaa fi ñëw te dana ko siiwal mu bëgg na nga xam ni fii moom dama fee doxul dara ci daray àdduna rek loolu gisuma ko maa ngi ni jàkk rek ci yor yoru yowmal xiyaamati kullu umu aati yowmal xiyaamati fardan comme ne fi sa kanam lu la neex rek defal fii nag dama fee mën a wax lu bari ndax li tax dama ko fee mën a wax damaa yëmaliwul woon sama baay ak dara te mësut a jógit fi sëñ Tuubaa ba turu kooba wii li ko waral xaalis la fi jëlee bu mu fi bay ak ñuy jaaxle mu di leen ñaanal jël xaalis bi dem di ko ko jox bi mu ko ko jox di ko teg fi suuf sëñ Tuubaa ni ko indi Omar loo ma jox ma naa koo nangu sëñ Saaliwu nag yàlla baal ma ak sëñ Tuubaa am na wet goog ñoo fa yem ci am na xaalis yooyu duñ ko laal bi muy teg xaalis bi rek sëñ Tuubaa ko indi Omar loo ma jox ma naa koo nangu mu daal di nangu xaalis bi tëyee ko ni ko lan la mu ni ko damay bay ak di ñaana li nit liñ may jox bu amee solo ma yut la ko ma indi ko fekk sëñ Masamba Mbàkke ngi toog sëñ sàmba daal di bind kooba muy ñaar fukki araf ak juróom-ñett mu bind Touba muy ñaar fukki araf ak juróom-ñett mu daal koy xool xool sëñ Touba sëñ Touba ni ko Omar mu ni ko Mbàkke mu jox ma ba mu daataan tibb suuf sañ tubaa tibbal boppam suuf ci loxo boppam jàng tifli sa jox ko sa sama baay ni ko demal def ko kooba dana jekki ba àdduna li ci biiram ku ci soxla dana la fekk kooba wala lam soxla du faju dimbali ma ci dëgg ma dimbali la ci lu barke loo liggéey dana ca def barke keroog ba ma toogee mu toog sëñ Abdoulaat toog sëñ Abdoulaat ba koo toxal da ko ni Abdoulaat fa ma toog de sa baay ma fa ba waaye boo ma fa jëlee du ma fa fanaan ba ko waxee lam ko wax da ko ni sëñ Omar bu ma fekk seeti boo ma soxlaatee woolu ma wala nga yónni siidi ma wax ma li may wax kon fànn googu mën nañ ciy dem ba bis bi del si waa déwén sama baay nee na sëñ tubaa rek nee na laalay wax li ma doon wax ak sëñ bii léegi mbàkke la sant satub sëñ tubaa la it nu bokk yit ci wàllu kër na yi bon li may wax mu dékko jàng naa alxuraan jàng naa ko nu di ko waxante léegi ci wàllu lekk addiyey nit kooku moom beneen mbir la ba bun ci jàllee léegi jotaay bi du dem fenn sax day daal di tas ndax sama baay ma wax ni Serigne Touba nee ko Omar mu ni ko mbak mu ni ko dénk naa leen ñaari yëf na ngeen ko wattu loolu ñu tuddee addiya ak ak ndax loo xam ne bu duggee sa bët bii nga xam ne lu ci bokkule ngi ci yàlla dana ko see diggante ni ak nit ci àq ci bàmmeel te sama yoon du ca ne fifti na ku ko lekkal nit benn la sëñ Touba wax de àllaaxira da nga ko yóbbu àjjana baa ñu yóbbu ko àjjana alaaxira beneen mbir la sëriñ Tuubaa nee na ki la koy woyofalal ba ko matul àndandoo bay matub xarit yële leen ab sëriñ te jàng naa tuuti aslëf kat waaye yàlla day wax na ni benn baat nga fen ko te du dëgg ci lu dul ñaari nit yu jub jote nga di leen jubale boo dee góor am nga bàkkaaru ku njaaloo ndeyam fanweeri yoon ak ñett ci biir Kaaba ak boo dee jigéen mel na ni njaaloo nga ak sa baay fanweeri yoon ñett ci biir Kaaba ak Makka li ma la ni fi ne néew na kuy ñaan ci dogalu yàlla bu agsi ci nit ñi mu fangu bari na ku ñuy teg fenn topp barkeb sëñ Tuubaa goloo la tane ana lan la lekk nga lu léwul mbaa lu mbaa def nga lu naqari yàlla ñu war laa pine ñu ngi mel ni sëy yi téeméeri sëy yoo ñu ñaar rek ca baaxati fi mu ne jigéen boo ko xamee takk ko moo takk sa ndey di sëy ak moom a yem bu ñu la nee kuy sa jëkkër neel sama baay bu ñu la nee kuy sa jabar neel sama ndey ngeen am moom doom nag dem ci ku ñi ustaas la waaw mu ni la nañ ko bàyyi ba mu am ñeen fukki guddi ñu daganal diggante bi Serigne Touba nee na ñam woowu ñi koy lekk ak ñi koy waxtaane ak ku fa teg tànk sa war lay dékkee def def bi naqari na yàlla nan lay yàggee bañ mën koo daganal boo takkee ndaw si takkal sa ndey bu dee am ngeen doom ñu doxatal bis bi nii na am ñeen fukki guddi ñu may ko ko ñeen fukki guddi yi ñu may la ko di yor ndaw si amaat ak moom juróom-ñetti doom ak juróom-ñeent ak kii ko jëkkoon muy juróom-ñeent sëñ Tuubaa nee na ka ko fukkeel bu jàngee moo war a jiiteeg julli bu jàngul warta jiiteeg julli waaye juróom-ñeent ñii ñëpp araam nañu jiiteeg julli moo tax may la fànn googu buñ ci duggee mën a xaride sama diggal yàlla duma ko ngistal wa maa xalaqatul jinni wal insi illaa liya'buduun yi laam laana jaanam minal jinnati wa naasi ajmaïn nafsin saayiqatil mawti kullu kulluhum aati yawmal qiyaamati fardan kum ne fi sa kanam lu la neex defal maa ngi ki njëbbal sama doom a ngee di seddal yaa ngi carnet bi yor nit ñi moo ko yor sama benn doom a yor adiya yi sama deru biir attanul adiya ku koy lekkal nit bala ngaa jàll da nga xam bari na kuy lekk adiya ta giñ naa ci jëmmi yi sëriñ Tuubaa ñu ma yaakaar te billahi wallahi taala yi barkeb sëñ Tuubaa ku taxawoon tey ni ma sëñ am sëñ Tuubaa ameel na ma borte mënu ma koo muñ te dal ma rendi la fayoo bor bi jeex sama diggal sëñ Tuubaa bu ma dul tëdd koor gi ma yendu ma doge ko àllaaxira yal naa faatu balaa ngoon lu nu neex def fu nu neex yendu fu nu neex fanaan sëñ Tuubaa du nu seetaan du dëgg sëriñ Tuubaa nee na li ñu tuddee doom ak xarit amu ma ko ku jóg jëm ci yàlla la am barki démb ab sëriñ dafee di ko takk lii ci bakkan yi ma ni ko yow nan ngay dimbalee nit ci bàmmeel wopp ju bon ji ba jox ma ñeenti junni ak ñeent fukk ak ñeent téeméer fukk ak ñeent demal jigéen jum dal mbaa góor sa yàlla moom bu la ko wàllee ma ba sëñ te du ma dara lu du sagaru taalu bi bu bon yow ngay takk lii ndax defaa soob nooy dimbali yëpp ñëw ci bàmmeel ñàkk jomuk man mën naa weesu portabal bu sonné nga deglu ni kooku ci kër gi la bokk sama taalu bi faatu na léegi hmm? loolu dong nga war a yëgi ta léegi loo ñàkk-ñàkk jom ba mel ni man sa taalu bi war a faatu ñeen fukki guddi yi koy dese asraayil yëg ko waroo ko mën a yëg ko ni ko duma dara de waaye sunu borom day xamal na ma ni ñeent fukki guddi la desee wa asraayilu ni ko wëñal ma nooyi mu wëñi ko di ko ni ko nangam la mu ni ko bu ci benn toppee rek malaayika yi mu xara bii nay doo ci bokk bis penc waaw sëñ bi tolloo wut ak saraxa la ñeen fukki guddi door a dem di ko ko wax ab sëriñ dana reere yaari ganaar ak ñaari kiloy pompiteer naan xaaju biteelu wisk mbaa jiin mbaa roose di bëree ku feesal ba fajar yu ni sëñ baa nga ku yaakaar boobu sëriñ demal waaw nan jaamu yàlla nan ànd ak yàlla nan doyloo yàlla dara àdduna daal bu ma ko kenn wax waaw man daal li ma wax léegi lu ma la wax sama daal wii daal bu ma ko sulee defe naa ni dañ ko dajalewaat denc ci sama ron daal ba miraas ma séddale ko ku defe ni da nga fekk takkusaan demal lu la neex defal samay doom a ngi di dégg bu ma dee fen xam nañ waaw démb nit a ma jox montar bii ma ni ngóor si tooyalal morso fompal ma ko muy na yàlla ji biig ak jigéen te bi mu koy mooy montar baa ngi ci loxoom kii sama soxna la fekke na ko léegi jabaram woo na ma ni ma def na ko daa tax ma mënal ko dara ci bàmmeel hmm? toog fii ca biir Kaaba ak Makka nga seen ku jóge aji nga tàllal sa loxo laal mbuba ni ko bu ma fàtte mu ni la du ma fàtte du ma la fàtte taxul nga mënal ni dara ci bàmmeel ku dugg fii xam kii fi jóge nag man leer na ma ni mënal na ma fa dara la ma ko waxoon it barkeb sëñ Tuubaa ci yow laay mujjee ñetti nit aslamtu nafsin lillahi rabbil alamin nab yonent a wàcc bon lànk naa dogalu yàlla duma ko def ndax feeg yor yor yow yow ma xiyaamati gisuma fi lu ma ëmp ma di ko laaj kenn waaw duma fi def loolu it danaa tiit nga am ayu yàlla ba gis ma ni ma li nga def lu tax nga def ko nga seetaat loolu nag xool dund gii ñuy dund dund kasaara rek la weer na fépp ceeb nga lekk ko àllaaxira yàlla dana teew yow lan teew malaayika yi teew arafu cër bu ne ci sa cër yi yaram wi danañ ci defu lamiñ mu laaj la fépp ceeb wi leew na wala bi ko lekkee ba bi nga ko bi mu génnee ndax def nga fi lu neex yàlla wala lu ko naqari jëlale naa nag nga sant Njaay di añu kilo ceeb buñ soom bi demal waaw ñaari téeméeri yax ak ñeen fukk ak juróom-ñett yi ne ci doomu aadama bis penc ci yàlla da koy jël jox ko benn malaayika ni ko sànnil ma ko mu tasaaroo yax yi tasaaroo mel ni yow mu tibb loxo pepp sànni ci perong yax bu ne ñu def caw làmmiñ lakk ko ni ko seere loo seere woon jëmu ji di ko def ñaari téeméeri seere ak ñeen fukk ak juróom-ñett nag bu ñu seeree ni di a rey diw boo demee tribunal da nga xam da ngaa ñi sa kër wala déet jaamu nu yàlla du ñu wax dëgg du ñu dimbalante yërëmante néew fi sëriñ boo jox addiya ni ñu ko bàyyi ci loxoom ngay dem di nuyu keneen seen mu boor xal tam di yër andi ne sama yëf bu la nee danaa la fayal ak waxul dëgg du la fay télé bu leen yàq yóbbu leen ko ci. maa ko wax koo topp te jaamuloo wu la yàlla ba ko goloo ko gën ak ku ko mën a jur maa ko wax sëñ Tuubaa nee na aw ma doom aw ma xarit ku jog jëm ci yàlla la am kër gi nag li fi ne sëñ Tuubaa ko fi def te giñ naa ci jëmmi yàlla a yonent ak sëñ Tuubaa de billaahi wallaahi taala yi am na waxtu woowu comme fekk ci kër gi bakkaar mënu la tax a dem sa war a doomu aadama nag mënta tax ma wax ko bu doomu aadama doon tax ma wax ko kii fi joge di sama mag gënal ma sama bopp ma wax ko ko te du ko wax waaw maa ngi ñaan na ci mag yàlla képp ku fi teg tànk te puukare indi wula fi te ngay jigéen doxe ko ndigal ngay góor doxe ko sa ndigalul bàyyi ngay kilifa yilif sa bopp dox ko sa jéego yi yàlla nañ ko ca wàññi sa jéego yi ngay dox àllaaxira ci lu la naqari wala coono ku fi teg tànk maa ngi ñaan si yàlla ak Sëriñ Tuubaa sa musibam adduna yàlla na ko yalla jeexal tey sa lori àllaaxira yàlla boo ko gis saa yuñ la dugalee ci bàmmeel yàlla la sëñ Tuubaa nangu yàlla la teg ci loxoy sëñ Fallu ndax sëñ Fallu kat ku jara war maa la nee na ku la neex toppal ku la doy toppal ku la neex joxal sa adiya waaye bàmmeel moom ku lay ci fekk ku man ku lay sonal la ndax sëñ Tuubaa doo nga war a ñëw tamaan doo nga yërëm man lay yëbal képp koo xam ne kii nag sarangooñ yi ma sa génn ngi sëñ Tuubaa nee na bis penc da nga teew yàlla teew yonent yi teew ponki jaamu yàlla yi yàlla santaani yëpp nga def ko ba yàlla di la fay mu teg ci loxoom ni la si siir ko nga ni ko lu tax mu ni la da ngaa mas sa jooy ngir sëñ Tuubaa ku la bàyyi lii julli ba ko dégg naa démb ci rajo bi maa ngi déglu rajo bi démb barki démb mosuma koo def sama mag bi damaa woo ma dikk mu ni ma ndax li ñuy tàgge fii yaa ngi déglu ma ni ko du ma déglu tàgge mu ni lan ma ni ko du ma déglu tàgge ni di ko métti lu te du déglu sama déglu sama bopp barki bii ci barki démb ci bëccëg toog naa ci sama néeg déglu rajo bi dégg kuy wax ni sëñ Tuubaa day dafa am kër guñ dégg ay jooy mu yónnee fa ni lan la ñu ni ko ñi tak ñi tafa génn àdduna mu ni damaa defe woon ni ku faatu na ko waaje waxe bokkul ak la sëñ Tuubaa wax seet naa numéro téléphone bi dégguma ko fenn dama koy woo ni ko li nga wax sëñ Tuubaa waxule ko sama bàyyi toog ci njaarim sëñ Tuubaa toog ñu julli gee bay tëddi sëñ Tuubaa nga bu kaamil bi ak salla gi ak kurus gi ak der bi taxaw ci buntu ne bi dégg yuuxu ci kër sa sama bàyyi ma wax de sëñ Tuubaa yónnee ni nañ ma seetal loolee lan la ñu dem seeti ko dikk ni ko ni tafa génn àdduna sama bàyyi nee na bi sëñ Tuubaa tuddee yàlla dafa mel ni camion boo dugal ci biiru tabax ko accéléré ko mu ni ko jarul woon loolee la jaroon loolee mag mu réer te julliwul gee te dara ko la ko yàlla nara def bis penc moo jardi ko jooyal jooy yooyu jëm bis penc yor sa jar jabar ju xeesal ba weex foo laal ci yaram wi defe ni der wi dana robbi ko ngeen di fóonante ba yàgg nga ko taalal moo ma tëri tey tay yi na maa ju liggéey yàlla duma ko topp nigal ba dem waaw boo gis ci doomu aadama muy banku julli tax yàlla def ko ci ku dul julli te doo woor bu ko kenn wax ni damay léebu Baay Faal te doo Baay Faal Baay Faal sama yónnewu ci ndax sama baay moom wax ni Serigne Touba nee na ko Omar mu ni ko Mbakke mu ni ko yàlla xamal na ma guddi bi day nit ku nay ak nit kuy di nga yoon wi Ibra Faal ne doo dugg àjjana Ibra Faal nag yàlla ama ni ubbil ko bunt mu jàll nga ubaat ko te bu ko ubbilati ko ma bind bon Baay Faal benn la ku ku yaakaar Serigne Touba nag Cheikh Ibrahima sa Serigne waaye Baay Faal moom Cheikh Ibra Faal dong la li ma wax waa ji fii léegi waxuma Baay Faal bu yelwaan bu di dajale mees ak am leen di ko diw daakaandi ba muy daaru ci sa xotti taat xam ni boo sulu woon tubay di su ko gis ngay yor sa ci maxtu mi mu toll ni sama moom mi xam ni sëñ Mansoor xaj na ci ah, nga def ci téeméeri rabiya mbaa di jaay kooku bu xoolee Cheikh Cheikh Ibrahima ba jël nigal ba dem waaw ndax Cheikh Ibrahima Fall day sama baay wooy ni ko kaay di ko kaay wi sëñ Tuubaa bi mu dikkee ak moom ba génn mu ne ah sëñ Omar mu ne ah mu ni ko góorgóorlu leen da ngay xool man Ibrahima Fall li ma daj ci sëñ Bamba te sama day def na juróom-ñetti fan àllaaxira di wut ko ko may ndox te amu ko ba sama taalib bi ko gis yóbbu ko këram dalal ko door koo may ndox. ah yëf yi ak bokk jëmu ci de liggéey ñu fay la ku dul julli te doo woor te doo bàyyi faal moom li alxuraan wax sëñ Tuubaa wax na ni moom buñ la suul ci armeel moom doo dugg bu buñ la jullee bu la sang bu la ñaanal buñ la saraxal moo ko xaroo yem léegi ñi xaruñu daal di suñu yoon niwu ci nan def li ko li nu war nan rafetal rafetal ba sa digg ak yàlla. ke sama dooma ku may digaalil danaa ko ni fekke ko ne benn bii bu ma dee xaalis boo ci fekk seetal turu borom dama koo ñaanal mu faatu. te day faatu lim fi liñ joxe woon nañ ko ko delloo waaw ndaw si ci néeg ba léegi ak am dama ko ni toogal woo baayam mu woo baay ma jox ma ko ma ni ko fii ak ñaari fan bu faatuwul li ma jox maa ko moom bu faatoo ci sama kër nag rëyu ma ko kaay jël sa doom jël li ma joxoon xaalis baa ngi nii ak man waaw benn fif ci ñaan nga lekkal ko nit te la muy wut amoo ko àllaaxira doo dugg àjjana ab xam-xam nga xas ci ñaan lu bon mënatoo ñaan lu baax mu nangu téeméeri sëriñ yuy ñaan boo leen dajalee juróom ñeen fukk yaag juróom-ñett fu ñu wéetee gone gu jigéen guñ mën a gis tëdd ak moom door koo ñaanal naan ko jinne ji nee na nan def nii mu door a baax negal ba dem waaw xalaatal bis bi ñuy jàpp sa geen bi tawi ko ba muy juróom-ñaar fukki kilomètre ñu laxas la ko si xàlla bopp bi ngay wax di woo ñu ko daan defal di leen woo naa leen ñëw leen nu def li daan def ndaw si ñu yokk kanama gi ba juróom-ñaari étage mu nekk ci sawara di yuuxu naan ñi daan dem ci man na ñëw xool tey li ma yor ni mu toll ak ni mu rafete waaw mooy wéradi yu bari yi nag du dara noo ko teg suñu bopp jaamu yàlla nekku fi wax dëgg néew fi dimbalante néew fi yërëmante néew fi yàlla nee na bu mooy gi bari ma yokku dee gi wàññi wërsëg yi ku lekkatul doo tala mooy yàlla ku ne ci kër bis bu ne ñaar dee fa mbaa ñett doo leen fa bari mooy yàlla googu fànn leer na la lu nu ñu sàggane rek sàgg suñu digganteeg yàlla la ak ñàkk dimbalante bokk ak ñi ndey baay bàyyi ñu mën a faj soxla mënoo ko boo sañoon tey mu faatu la ca sama doom moo koy àggale waay nee na tàll loxoom auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri nafasati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas illahil nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah amidul majid la ilaha illallah jalla jalaluhu la ilaha illallah jalla baqahu la ilaha illallah karimul jalil la ilaha illallah ayyun la yamut la ilaha illallah ananun mana la ilaha illallah kharu fata musa laa ilaha xayru tawaabin laa ilaha xayru musinin laa ilaha asisul akim laa ilaha asisul jabar laa ilaha illa maliki muluk laa ilaha maliki sulumaati wa noor laa ilaha illa maliki samsi wal qamar laa ilaha illa maliki jannati adni laa ilaha illa maliki jannati lahla laa ilaha illa maliki jannati salaam laa ilaha illa muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ya laahu ya rahmaanu ya salaamu ya muminu ya muaminu ya mutakbir ya xaaliqu ya bari ya musaw ya fataahu ya rasaahu ya alimu ya xudus ya salaamu ya malikal mulki ya sul jalali wal ikram ya muqsit ya jamiu ya asiyu ya jabaru ya xaaliqu ya bari ya sawiru ya sabor rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اسبل ستوري اسل الامور كاشف الخير بلا كده كتاب ربي كان لي وكنت له ولاي بي سكنت ولا قران السير بي جبال كل الموت بال لا اله جميعا خينا البلايا افتل انا جمل اتا سب سب السلام بسم الله الذي لا يضر ما اسمي سيون ولا في السماء وما في الارض وهو سميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعبد الله وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا نانو mucc yàlla nanu wér yàlla nanu am yàlla nanu am jàmm yàlla nanu am yàlla lépp lu nu nar a tàggaleeg yàlla yàlla nanu yàlla tàggaleeg loole ci barkib sëriñ Tuubaa waaw la cay dolli ko waat nag boo demee boo ko tegee sëriñ bu ko deg ni la kiy wax lii naafiq la nee ko nan toog ma wax ko lu mu def di gëm ak yàlla loolu du jàll moom na sant Mbàkke nay satub sëñ Tuubaa faa doomam na toog nu wax ma wax ko rek lu mu def lu naafiqul ni ni ma def naa ko du jàll moom